aleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 25 février ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi mu mel ni nag ñoom ñëpp tey ñoo xëy bokk fu ñu génn ci mbirum docteur Alioune ak démb yëglikaay yi ne nañ mu ngi dana jàkkaarloog taskatu xibaar de la presse moom nag ñëw na leeral fa lu bare bare bare bare bu fekkee dina digganteem ak Yékini la moom jàpp na ne kii di Yaxya Jóob daal amuñu benn problème nee tamit li leer ba leer daal li am ba des Alioune Sarr daa jàpp ne daal jàppal muy Yékini Tyson wala Eumeu Sène ku ci nekk daal sam formation moom lañ ca war a def ñoom def nañ ko ci ca jamono ja nga xam ne ca lañ ko war a def nee na tamit yax yi jóg mosu koo won wala mu won leen loo xam ne ni lu jëm ci wàllum indiscipline la maanaam daal réewante nee na loolu moom dèjà mësu la am loolu mooy ki nga xam ne nii mooy docteur Alioune Sarr dañ tamit li leer ba leer daal kii di Bombardier moom du moom moo leen di wax heure bi nga xam ne nii ca la ñuy départ wala ñu war a bàyyi dana loolu moom jërul sax a wax yëglekaay bi nga xam ne moo di record moom Alioune Sarr tam moom fay leeral mu mel ni ki 47 promoteur daal wàcc nañu ak tamit ci wàllum sax ci lutteurs yi moom boo bëggee dégg dëgg moom dafa mel ni 2000 702 litres yoo xam ne ni gis nañ leen ak 21 menacé mel ni ki daal bari na loo xam ne ni Alioune Sarr ñëw na tey leeral ko démb ci lu jëm ci wàllum làmb ji ak na muy doxe drapeau chef de l'État baag lutte olympique baag lu mu mënti doon daal Alioune ñëw na tey wax ci lu bare bare bare waaye nag am na seetlu boo xam ne daf nañ ko ci rapport mel ni ki ki nga xam ne moo di Manga 2 Yékini wala Ibrahima Sarr ba ci Khalifa Sow itam ñoom daa mel ni conférence de presse moom gisuñu leen fa ak ay bët loolu yëglikaay bi tamit ñëw dina ko wax leneen loo xam ne ni tamit gis nañ ko fa nga xam ne ni mooy te sunu làmb nga xam ne ñi ñoo di waa CNG ba moom la ñu daal boo xam ne daal dañ ko organiser ngir mbirum roi des ma ñu xool léegi naka lañ koy xëccoowee loolu ñëw nañ tey dina ko wax te nga xam ne moo di Bombardier tamit bu ñu demee ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb moom mu ngay préparé li nga xam ne nii moo di MMA ba fu mel ni ki daal wàññi na ay kilo yu bare bare bare Luc Nicolaï wala boog Ama Baldé ak kii nga xam ne moo di Modou Lo moom mu nga xam ne nii moo di Bombardier mu nga cay wax keneen koo xam ne mu ngay wax moom moo di Jet Li Jet Li daal diggante ak jam la xëy di wax daa jàpp ne daam bu dee am kay jam téeree ko def moo daam ñaari yoon Jet Li moo xëy tey di wax lu mel ni kii noonu moom daal jàpp ne ndam la moom moom moo ko moom moom Jet Li moo tax nag mu nga xëy ci yëglikaay bi di sunu làmb moom tamit di fa wax waaye yëglikaay bi ñëw na ci beneen xale boo xam ne ne xale bu technique la ba ñu koy wooyee li nga xam ne nii moo di zone technique ak ay ndamam yëglikaay bi xëy na tey ñëw dalal ko mu mel ni kii nag loolu mu nga xam ne nii mu ngi ca sunu làmb waaye loo xam ne gis nañ ko ci sunu làmb ki nga xam ne nii moo di idaali ñu ngi moom itam mu nga ba waxtaan di sa rubrique ba nga xam ne moo tudd Leewtoo moom nag mu ngay wax daal mbër yoo xam ne bëgg na le moo xam Ama Baldé Balla Gaye 2 ak ki nga xam ne nii daal moom Maama Lamine loolu Idaly ñi ngi moo xëy ñëw di ko wax ci yëglikaay bii nga xam ne nii moom moo di sunu làmp leneen loo xam ne nii tey dañ koy fekk fa nga xam ne nii moo di xam ne nii day moom moo di Aboy mel ni combat ba nag la 4 avril daal la fas am. ki nga xam ne ni mooy Boubacar Niang moo fa jaar moo tëgg làmb jooju nga xam ne nii daal le 4 avril ca a am kon nag mu mel ni ki tey daal daa mel ni loolu moo fi jot na ñëw ci yëglikaay yi. Leewtoo TV ñu ngi nuyu di leen gërëm e e e mm, di sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi di si baat waaw waaw waaw tey de xam naa nga la maa lay fay di nuyu nit ñi suivre ci Leewtoo TV yëpp foo ñu mën a nekk rek di leen ñaanal jàmm di ko saako suñu bu baax a baax a baax. Mm. Babacar loolu am na solo nag Babacar tey nag ginnaaw euh, bu mu woote woon démb point de presse foofu si maison la presse kii di Alioune Sarr nag génn wax nag euh, li nga xam ni moom mooy actualité làmb ji journaux yëpp tey moom la ñu xëy ak site internet yi ku ci mel ni sunu làmb record Leewtoo TV ak Leewtoo point net foofu si Leewtoo TV nag euh, ki nga xam ne moom mooy Alioune Sarr nee moom. amul benn problème ak euh, yëg ak ak ki nga xam ne moom mooy yaxee jóg yëg yi nee kër koo gis nag des na am problème mais lépp la koy toog di ko waxtaanee te lépp lu war ne roi des arènes nee na nag dañu war a organiser benn tournoi ñoom ñëpp ñu bokk si suñ si génnee nag ñu xam kan mooy roi des arènes nee tamit nee bomba ji bi nga xam ne dafa gënoon dem di wax ñoom waa CNG ñoo war a euh, abale euh, wala boog état bi jël CNG bi teg ko si yeneen loxo nga nekk mbër te rek mu yem sa place mbër Babacar. waaw loolu daal démb moom la wax làmb moom li ci nekk mooy actuellement comme li ñuy wax la rek am na loo xam ne moom de su ko wax wax ci ci mbedd ndax diggante Yékini ak seen CNG moom ñoom ñoo ko copte mu bokk ci seen biir comme ñoo ko copte mu bokk ci seen biir nag xëy na am na loo xam ne comme lu ma waxoon keroog la Yékini bu ñu ko ko laajee. ci foo xam ne daje la am na droit xëy na sànni si kàddu mais la nga xam ne moom la ñu war a waxante ci wala ñoom ñuy seq affaire yi moom defe naa ne du lu ci biti wax xalaatam kii xalaatam ni kii mais lépp rek li ci am solo mooy bu kenn daal jàpp que ni yow xam nga euh, li nga wax moo war a am wala li nga wax nangam noonu li fi nekk daal mooy ku ne sa xalaat nga am danga koy joxe boo ko waree joxe après nag xalaat yooyu taxul que ni tey na fi seen CNC jóge taxul état jële fi CNC na fi CNC toog taxul état bàyyi fi seen CNC kon li am solo daal mooy wax na xalaatam Alioune Sarr nee na moom mbër la na yem ci bëreem waaye it nag loolu mooy Sénégal ku ne daal am nga droit joxe mm-hmm. ma si diggante ak yeneen relation ak yenn mbër yi nga xam ne ñu si bëree euh, bëri nañ ba bàyyi bëri ak ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ni nee na Yékini Tyson ak yi nga xam ne mooy Eumeu Sène nee ñëpp seen carrière am loo xam ne participe na loolu moom mooy li war a am parce que làmb dafa tëdd noonu ah. parce que ñoom defe naa ne bëri maanaam bu dul CNG du ñu dem Alioune Sarr itam yaakaar naa sax waxuma sa làmb mais à làmb am na loo xam ne nii mën na ko seex ak mbëri loo xam ne nii entre ñoom ak moom lay doon ci seen ay formation yu mel ni ki noonu loolu tamit xaar ci moom parce que moom la dénk affaire yi bi nag suñu la ko dénkee moom boo ko yokkul yaa ko wàññi waaw kon daal yaakaar naa ne loolu moom te mbëri yi mu tudd yooyu yëpp ku ci ne am na loo xam ne nii wane nga ko bu dee yéegi na def na drapeau sur le def na ko ay international lañu kon ñooñu yaakaar naa ne bu ñu nee participé na ci seen kii rek am na loo xam ne ni ci biir war na ko mën a nangu wala ñu jàpp ko daal. Mhm. Babacar nag su rapport euh, Alioune tamit mu fay wax nee na lutte olympique bi mi ngi am ay résultats yoo xam ne ren moom ay résultats yu désastreux la ko Babacar. waaw loolu moom xam naa ne daal doy na waar mais nag nañu gën a liggéeyaat. waaw liggéeyaat daal mooy tax mbir yi gën a kii quoi parce que lu may wax chaque jour à chaque fois rek bi coow lu bëri moom amul njëriñ li am njëriñ mooy liggéeyaat liggéey bu bu nekkee te ñu ñuy liggéey te bàyyi su yàggee mën nañ dem ba benn mois la ñu soxla danañu ko am quoi pour que olympique yi ëllëg bu ñu participé waatee ñu indi résultat yu gën nga xam ne ah, tamit si journaux yi ki nga xam ne mooy sunu lamb ak robo ñoom condition yi nga xam ne moom la journaliste yi nekkee woon ci drapeau na leen ñoom su ko defee su jëlee en euh, na seen baax moo tax mais bu nekk képp kuy ñëw drapeau chef war a jël wala boog sa xam ne ñoom a jël en charge Babacar loolu lépp ay leeral la rek parce que dana tax ku ne xam li ko war ak li mu war a def yaa ngi dégg bu dee ñoom seen rôle bu dee pour def lu baax la rek ba tax pour ñu jël presse bi en bu dee drapeau de l'état la ah loola kon yaakaar naa ne lu baax lañ ciy jublaay nag ci yoon comme ni mu ko jàppee mooy bu yoon amee li war a am mooy presse ku ko yebal yaa koy jël en charge tamit defe naa xel war na koo mën a nangu ba nga xam ne tamit bu drapeau de l'état amatee wala yu mel ni ki noonu tournoi yu mel noonu defe naa ne ñu jël leen en charge bu seen see rek amee mbaax bu toll ni moom participer ca day gën a baax rek ah. waaw. Babacar sunu làmb si ñëwaat nga si ni moom moo amoon dimanche diggante Jet Li ak Jam Teeri Jet dem nañ ko seeti moom lu mu wax ne na ki xam ne mooy Jam Teeri daan na ñaar xam naa ne li bëri ci actuellement euh, moom dafa jàpp ne Jam Teeri dafa daanu Jam Teeri daan jàpp ne moom daan na Jet Li la moom ñu génnee foofu wala su mbir la wane mu jëkkay bëtam quoi Babacar ñu jeexale nag ak ñi nga xam ne ñoom ñooy absent yi gën a remarqué ki nga xam ne mooy Manga 2 Yékini Ibrahima Sarr ak Khalifa Sow ñoom ñëpp kenn teew si si si si point de presse boobu waaw loolu da danay faral di am xam naa woote ñëpp wuyu dafa yombul xam naa ñàkkul ay am na lu leen tere ñëw ay teq teq wala nangam sànga waaye lu ci mën a xew rek ah, ñu yónni yàgg rek comme ni mu koy faral di waxee ba ci kanam Babacar mm. na sa kàddu yoon lañ daakoor lañ wax di daje suba incha allah mais balaa boobu may nu suñu mais soo ñu sama doom ñuy astanne si ñi nga xam ne Khadija Diallo di ñi nga xam samay doom maam Diallo Penda Rokhaya yi nga xam ne moom mooy grand fan yi si biir Babacar waaw nuyu nañ ñëpp ziar ñaan ñëpp jàmm rawatina internet bu TV fu ngeen mën a nekk rek si àddina bi ñuy seetaan nga jënd seen connexion yi yàlla na seen jàmm yàgg xam nga duñ leen mës a fàtte ñaanal képp ñu suivre rek xam parce tamit kuy wax kuy déglu mooy mbokkam ku mel ni Saliou Khoulé du ma ko mos a fàtte ah maa koy nuyu bu baax a baax a baax ak ki nga xam ne nii mooy Mamour Kandji Mamour Kandji itam maa ngi koy bëgg bu baax a baax a baax doomu nday Saliou Khoulé wala boog waaw maa ngi Saliou Khoulé ak loo ci ma a dégg daal Mamour Kandji maa ngi lay bëgg di la ziar di waaw kooku social da ci yëngatu bu baax a baax a baax a baax borom mbuur géej xam nga borom Ndakaaru Mamour daal bëgg naa di nuyu ki nga xam ne tamit moom mooy Rimka Couture